ISA la cuisine sénégalaise de Astou chaîne bu lay jàngal togg cosaan togg maam ànd ak jamono neexte sell duggal ci site bi di 3w point cuisa point fr wala nga dem ci chaîne YouTube bi di cuisine sénégalaise de Astou am na Facebook Instagram ak si Twitter da ngaa bëgg a sa borom kër sa njaboot wala say dëkkandoo ci ay plat yu neex waay ay plat yu amul benn bouillon amul benn artifice chaîne patriote bi nga xam ne la ko tax a jug nag mooy yóbbu culture culinaire sénégalaise ci biir adduna bi ñëpp te jàngal tamit xale yi ni maam daan toggee te du am bouillon te du am tam artifice affaire bi daal cuisa la seen pharmacie maam lamp faal yegg seeti na dee ak Serigne Assane Fall dëkk fan comico ca Géejawaay ay ci ndoxum siti lool hémorroïde ballonnement impuissance maanaam jafe-jafe ci wàllum sëy ak Serigne Assane Fall jaaxle kon jeex na di yëngu tamit ci wàllum ñaan ak mbirum gisaane di ko defee nag ca seetu ba ma ne wàllum ndoxu siti moo ca mën ku ca bëgg 234 57 03 soxna Roxee Dramé ne akarité bii nga xam ne baatin kese la àndal baax ci asma baax ci jabet ba ci ay yaram yuy mitti nag te diis Marie Rosaire beeru karité lañ ko liggéeyee ñu liggéeyee lépp ci Afrique gi di faj nag ay jàngoro ay infection chronique ma ne waa lii ku ci bëgg nooy def xanaa woote ci 78 395 39 81 wala 78 592 51 51 mbokk yi ñu leen di nuyu dal leen ak jàmm ci 2A TV la chaîne du peuple ñu ànd ak El Ahmed Aïdara ci li ci yéenekaay yi bisimila journaliste yi day ah solu nanu lool les fa yéene kaa ne gis nga liberté de la presse koo ga eh, journaliste yi moom seen bopp waaw Sénégal day daal dinay dellu ginnaaw de dama ne la dellu na ginnaaw ñaar fukki place ak ñeent laa la wax la ilaha illallah alerte yéene kaa ne marche en gu rëy goo xam ni lañu def jéego boo xam ni ginnaaw la Sénégal dellu na ginnaaw critique yéene kaa ne dëgg la dama ne la quatrième pouvoir ba day kat appui la def lii bu doon làmb dañ naan daanu na dañ naan presse bi daanu na diggante nag ndóol niveau yu wàcc wàllum baana baana ji informel gi waaw waaye tamit ñàkk publicité réew mi quotidien ne xanaa xamoo ne a doy waar bi gën a mit lool ci presse Sénégal day lañ nekk ni lée yéena kaa gi ne bëggee dégg dëgg non presse bi kay daa dee presse bi la ñu wax de mort de la presse normale te nag événement yu mujj yi lée ci audio aji saar ngay xam ne presse nationale ba day daal dinañuy démissionné dama ne la borom mbele mbele yi les grands niñ leen xamee waaw waxuñ ci dara journaliste yu mag yee ca 2000 anañu ana ñooñee nga xam ne bi Abdoulaye Wade defee kon alternance ba daaw ñu hésité de mbiliñ mbac ñu songo Abdoulaye Wade laa wax nii ak nguuram ga ana journaliste yooyee ñu tuddee woon les grands journalistes ñoom ñooñee ñëpp daanaka dee nañu wala sax ñu suul leen yéeni gi ne boo leen bëggee dégg-dégg kay presse Sénégal bi lee dee na léegi kay ci des sañse dem ca rob ga rek solo rek dem ca dëj ba jaale ji loolu ci des yow maire yi kon war a doxee waaye di jël ñuy liggéeyee ca maire yi recrutement yi wal ne Macky Sall kay Barthélemy Dias lay menacé na leen ngir ñuy liggéey président Macky Sall ne fee nekk rek di def loo xam ne kon da koo neex bépp recrutement boo xam ne day daa safaanoo ak organigramme bi waaw du jàll daa nul Macky Sall yamu ca dee ci les écoles waaw nee na bépp maire boo xam ne kon maanaam da ngaa def lu deful mais dañ lay dàq démis de tes fonctions révoqué la eh way Samba eh way Samba yéene kaa gi ne Macky Sall day yat wala génnee de ba nuppi nag di xupp waaw ci lu jëm ci wàllum poste gi def lu la neex ci réseaux sociaux yi parce que Macky Sall nee na lu tolloog ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay quotidien quatre cent cinquante six ci réew mu ndaw mu ni mel loolee am ba ca xoola c'est de l'anarchie Macky ne réseaux sociaux yi lée cancer la mujj nekk laa wax ci société moderne te loolee neex nga def boo eh waay Samba eh waay Samba yow ci jamono joo xam ni kon Macky Sall ngay waxtaanee wàllum valeur yorin gu baax ji rafet waaw direct news nee na maire yeewee askan wi nga xam ne nag Macky Sall kon mi ngi leen di ronk ak doxalinam yii mën na jural dara dara la ko jural yéen kaay Pape Diogaye Faye bi ne yow ñu fal ci élection maire yi xam ni fekk nañ président Macky waaye est ce que maire di dem noonu askan wa danañ leen topp transfert automatique de voix mukk te gis nga audience yi nga loolee du jur dara biir APR lu dul mer loolee day merloo waa APR waaye Macky Sall day lu yàggul dara war na cee jàngee lu bari lu mel ni dem si yàlla jibali ka ak Idrissa Seck mi lee waaye seen transhumance juróolu leen tous parce que ko ba muy dem ca Abdou Diouf di ñëw sax ci Abdoulaye Wade mi lee yóbbaalewul kenn Idrissa Seck ngi nii barki dem boo njaay dañ koo dóor ca Thiès dóor ko ca ville ba ko ca commune yo yeewee askan wi day waaw yenn ci ay meereem yoo xam ne ñu ngi koy ronk ni lee de mel na lu leen yëngal waaye Macky Sall tamit risque la jël de ànd ak ay politiciens yoo xam ni seenu askan dañ leen a wàccu sànni leen fële topp ñu leen mbong mbong loog muus muus lu te gis nga Abdou Diouf day 2000 waaw mook Abdoulaye Wade mi lee 2012 mais ku ci nekk dund lu mel nii jël ay transhumant moom gars dañ lay bañ dañ lay jéppi waale critique yéene kaa ne Idrissa moom na leer ne élection député yi lée mooy sànni tàccoom de mooy sànni tàccoom de dooree suux fa la ñuy xam ku bëgg sa jug takku loolee ma ci ci dugal ci kii di Macky Sall laast audience bi nga xam ne ne doon na dox ci diggante waa Thiès rek seen intérêt rek seen intérêt rek seen image rek mbay jon meeru nguñ ñaan waaw nee na li ko jaaxal day am na ay responsable Benno Bokk Yaakaar région wu Thiès nee ñoo indi nañu vingt cinq ci ay parrain waaw teew sa de vote sax mënoo koo gañe loolu nag doyul waar alerte yéene kaay ne en tout cas Habib Niang day waaw Macky Sall recevoir na ko ba pare daal di koy tagg na ca biir palais ba uh-huh. Ablaye Dieye siggi jot na ca Thiès waaw nee moom mës na génn Bokk Yaakaar ci laas le quotidien yéene kaay ne waaye auto politique yi fas yéeneen tirage de ah waaw xam nga élection présidentielle ba dañ ne woon Mimi Touré fa jiitu Malick Gakou ne déedéet ba tax ñu daal di ko fay caxat-caxatee indi fa kon am coow loolee nag la ñuy bañ moo tax bi yoon nee dañ koy tiiree xanaa fii set la Maguette Sène maire Malicounda nekk DG wu ko ci leen fa yéene kaay waaw nee na bi daal la ma di woo ñuy delloo seen xel ca yàlla ngir élection député yi lée mën a jaar ci yoon mën a jaar ci day dem ba élection présidentielle ba laa la wax te dàquñ nag organiser ay première seen biir Thierno Bocoum ne lii nag li ko indi mooy am mar waxtaan bu juboo mootu mu rànke ci réew mi opposition bi de moo jur lii 24 heures yéene kaa ne waaye jam ñaa jógi la fay xew nii lan la ab ay milliards milliards ngir fay ay société privée ci lu jëm ci wàllum externe ministériel yooyee ak yeneen i bagaas sax Yérim Sow Madani Tall la wax ci empreinte islamique ne gay waaw nee na Macky daal ak ay ku mel ni Aminata Ñaan Madani Tall ñaar ñooñee nga xam ne nag nekkaloon nañ Sénégal kon ca ñoo ñooy bret noowu Macky Sall le témoin yéene kaay ne postu day danañu ko jébal boroomam de dee te dañ koy suul parce que Macky ci boppam ah nee entreprise boo xam ne am na lu tolloo juróomi junni ci ay employé loolee nan lañ koy sobee Macky Sall dee bu ci amul saafara moom xaw ku ci am saafara mënul ne mënuñu googee parce que ñu ci gën a bëree bëri mais du ñuy liggéey si ci lu jëm ci wàllum ñu liggéey ca Air Afrique waaw nguur gi day dana génnee ñeenti milliards ak téeméeri ci semaine bii di ñëw alerte yéene kaay ne Ndakaaru Njaay ja Jóob Rufisque Thiès ak Louga waaw danañ toog ñaari fanu yàlla yoo xam ne du ñu am ndox allahu akbar libération yéene kaay ne soxna soosé nga xam ne dañ koo fekk mu dee ca Tiwaawan pël waaw toll ci juróom benn fukki day Mariam Waar dañu koo ko ndekete waa de beneen xale boo xam ne tam xaritam moo ko rey toll ci fukki at ak juróom te sa yére ko te nii la mel nee la mel loolee moo leen boole xale bi jam ko dem naa ca football ba stade yéene kaay ne Real Madrid day digganteem ak Manchester City tey la démb nag Sadio Mané daan na Boulaye Dia Liverpool moo gagné Villarreal dem naa ca lamb ja suñu lamb ne manageru Modou Lo day Modou Lo waaw nee na cachet bi gën a ngand cent quarante la yéene kaay gi ne Tyson ak Balla ñaari super staru lamb jaa ngi la de lamb ji dee léegi <laughs> <laughs> waaye lamb ji dee ak lu mu doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar Macky na xam ne politique du métier suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree sama waa ji mën a lu tëjal jërëjëf El Ahmed Aidara mbokk yi ñu leen di dig daje ëllëg incha ci beneen numéro revue de presse ñu leen di ñaan ngeen di wéy di abonné ci suñu chaîne di partager suñuy vidéo ba suba incha allah ci beneen numéro revue de presse fii ci 2A la chaîne du